الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu borom mi nga xam ne moo ñu yóbbu ba ci buntu ramadan sunu àjjumay tey jii mooy séntu bu njëkk ci weeru koor bu yàlla dogalee mu feeñ suba insha allah mooy dara nekk bis bu njëkk ci weeru koor donte ne dégg nga yenn réew yoo xam ne ñoom jàppoon nañu ne tey mooy fanweer suba la ñuy woor almuhim li ñuy ñaan suñu boroom yal nañu yàlla wërsëgal ñun jullit ñépp ñu bokkandoo commencé ndoo weeru koor kon mi ngi noonu weeru koor boobu mbokk jullit nañu xam ne suñu boroom yàlla subhanahu wa taala soxlaa lu ñu sunu xiif wala suñu mar sunu boroom yàlla bi muy tëral weeru koor ci ñun dafa am lu mu bëggoon weeru koor def ko ci ñun ngi mel ne médecin bi bindal ab malaatam garab jubluwaay bi rek du mu naan comprimé yi waaye mooy loolu lan la war a def ci moom su ko defee nga xam ne weeru koor bul jàpp rek xëy naa lekkuma naaw na ma bés ba jot ba ngoon jot déedéet dafa am ay bind yu loolu àndal bind yooyu boo ciy bàyyi xel diiru weer bi yépp boo jógee ci weeru koor daf lay defaraat daf lay yeesalaat defaat la ab julit bu bees sax suñu boroom daf ne ay yéen julit yi farataal naa ci yéen koor koor mooy lan muy assawmu asiyaam loolu mooy jàpp ndax mooy jàpp ci bakkaar yi déedéet bakkaar yi moom yàlla daa farataaloon ñu jàpp ci at bi yépp waaye jàpp bi lu ci yàlla jublu mooy lekk ak naan gii ma daganaloon ci yéen ngeen miin ko di ko def bu nekk bés bu ne ngeen teg seenu añ añ ba suur wala lu ànd ci way dencante yi di ànd ab bëccëgu weeru koor yooyu yépp bàyyi leen ko ci bëccëgu weeru koor ngiree ma nattoo ci kan moo ma ragal ak kan moo ma ragalul ci yéen kon mbokk weeru koor mooy loolu mooy li muy jëkk a jëmbat ci ñun mooy li nga bëggoon miin ko daan ko def bu su nekk tey nga àttan koo bàyyi te yàlla tax ngir ñaari mbir yaakaar pay nga nekk ci loolu ca yàlla ragal mbugal ma nekk ci loolu boo ko deful ca loolu rek mooy ragal yàlla ragal yàlla mooy nga def ay ndigalam yëg ne boo ko defee mu fay la bàyyi ay tereem ca yëg ne boo ko bàyyiwul mu mbugal la lii da ngay gis ne mooy suuxat ragal yàlla bu nga xam ne mooy caabi di yóbbal bi gën a rëy bu nit di yóbbaloo adduna ak alaxira suñu borom mu ne xayra zaadi taqwa lu waay di dajale ci kaw suuf ragal yàllaa ko gën su ko defee moo lay ubbil mbooli mi xiiwalu adduna ak xiiwalu alaxira loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaam daan ñu wax ni ki woor weeru koor day nam ko war a woore babaa weeru koor di dillu si bakkaar yi mu fi dee fépp yàlla da ko koy baal xanaa lu dul bakkaar yu mag ya nga xam ne daa war mu tuub ko tuub bu sel loolu di mbir boo xam ne ku ne ci ñun war na ci bàyyi xel fu mu mën a toll mbokk gis nañu ne ku tudd koor tudd naafila naafila yooyu lu bari ci doomu aadama yi dañ koo jàpp rek ne pour koor gi baax la doonte na mbokk naafile gi ak koor ba jotiwul dara naafile gi jaamu yàlla boppam la soo naafilewul woon it sa koor baax na waaye xamal ni même yow mi nga xam ne koor waru la ngir dangaa feebar wala dangaa màgget war ngaa taxaw ci naafile yooyu naafile yooyu nga xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala moom la waxoon ab yeneen tam na ko bu guddi jotee jógal taxaw danaa la dekkal ci place boo xam ne fala la ñépp di gërëme yowmal qiyaama muy wane ne ku bëgg a ànd ak yonent bi alayhi salaam ci taxawaay boobu war ngaa góorgóorlu di taxaw ay naafila waaye nag suñu borom yàlla ngir bëgg ñu miin ko ci la yoonal ci diine ji julit ñi di war a daje ca néegi yàlla ya góor ak jigéen mag ak ndaw di taxawal li ñuy tudde ab tarawix yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ci taxaw weeru koor naafila ko day yàlla subhanahu wa taala dana ko baal mboole mi bakkaar yëm jiitaloon bal suñu borom denc ci benn guddi boo xam ne nee na moom kese ku ko taxaw naafila ko yàlla baal ko lépp lum jiitaloon ci bakkaar guddi googu mooy laylatul qadr yow mi nga xam ne da ngaa bëgg dëppoo kañ la laylatul qadr lan ci wax ëpp na ñeen fukki wax waaye ak yomba xam moo ko laylatul qadr la yomba xam la suñu borom nee nañ ci weeru koor la nekk fexeel ba fanweeri guddi weeru koor yépp taxaw ci naafi la ñaan ci tuub ci jéggulu ci incha allah da nga dajeeg moom loolu mbokk ñu bàyyi ci xel ñun ñépp loolu di nga xamee ni lislaam yoonoon na ko naafi la googi jubluwaayam mooy taxaw di jàng téeréb yàlla bi mbokk téeréb yàlla bi dañ ko war a jàng waxtu wu ne waaye suñu borom ngir jàngal xeet bi ñu war a yokk seen yittewoo ci alquran mboolem guddi weeru koor da doon yónni yonentam bi gën a màgg ci ay malaakaam te mooy jibril alayhi salaam mu wàcc ci kaw suuf ànd ak yonenti yàlla muhammad ñuy nafar la nga xam ne moo wàcc ci alquran bal dañu ne sax ak ñi fi yonent bi mujj a def jibril alayhi salaam ànd naag suñu yonent ñu commencé ca fatiha baqara ba naasi reprendre na ko daal di koy jàng ñaari yoon loolu muy wane ne mbokk alquran mi ngi nii weeru koor ñu war a góorgóorlu di ko jàng ci naafila ya war a góorgóorlu di ko jàng ci leneen lu dul ay naafila borom xam-xam yu jëkk yi day nan ca daan taxawee boo ci jëloon kenn dong koo xam ne yaakaar naa yéen ñépp dégg ngeen turam mooy imaamu malik bi nga xam ne dañ naan sénégal ñu ngi ci mazhab malik imaamu malik ca jumaa yonent bi la daan toog di jàngale hadis di jàngale fiq waaye bu weeru koor ma san jot day dëgg place boobu mu daan toog di jàngale def ko weeru congé heure bu ñëwee ca njàkka dem nga tiim téeréb yàlla bi di ko jàng ba baa koor gi passé mu doogu ubbi waat ab l'école am loolu mu lay jàngal ay yow julit imaamu malik miy bàyyi jàngale hadis ak fiq ngir ittewu alquran moo ana yow mi nga xam ne ca kanamu télévision ba nga fas yéene woon a toog jublu ne da ngay dàq sa koor ca film ya ca théâtre ya ca match de football ya ca documentaire ya nga la waay xamal ne weeru koor weer bu tedd la temps bu cher la temps bu ñu war a meubler la ak la ngërëmal borom bi subhanahu wa taala nekk kenn waru koo daq bal dañ koo war a sàmm bépp heure doon ngeneel ci ñun loolu moo tax ñi ngi leen di moytuloo seen kemtalal kattan télévision ya di leen moytuloo seen kemtalal kattan portable ya ngam na waaye li ngeen daan sëgg ci portable mën nam doo ci bàyyi xel waaye boo ko calculer si des heures par jour xoolal kañ ngay consulter sa portable ci jour bi ca la nga xam ne mun te ñàkk gannaaw loolu ngal la waaye jagleel ko la nga xam ne mooy téere borom bi wala duruus ya nga xam ne mooy jàngale loolu falilahi alhamdu mbokk julit ittiwoo alxuraan day mooy jàng ko waaye ittiwoo alxuraan mooy jéem koo dégg ngir jëfe ko loolu moo taxit soo dellu woon tey ci mboolem jàkkay adduna bi da ngay gis ne boromi xam-xam ya ñang fa toog di leeral téerab yàlla bi rawatina ci chehru ramadan loolee donte ne nit ki lu mën a doon des na te def la ko sës loolu it moo tax ba doonte ne bokkuñu it ca boromi xam-xam waaye falilahi alhamdu li nga xam ne mooy weeru koor bi moom ba baa weeru koor bi di jeex insha allah bis bu nekk bu ñu sëlmalee tàkkusaan daan jël tiirab yàlla bi daa di ci fàttaliku la yàlla dogal ñu fàttaliku ko ca baba suñu borom yàlla di jeexal weer bi ci ñun mbokk bokk na bind bu rëy boo xam ne weeru koor mi ngi ñëw yow julit nga war caa bàyyi xel ca mooy li ñuy tuddee al ixlaas mooy sellal ca yàlla tax mbokk jaamu yàlla yi lu mu bari bari lu mu taaru taaru yàlla soxlawu ci lu dul lu sell ca mbokk koor moo lay jàngal nga def ca yàlla tax ndax bu doon da ngay woor ci nit ñi rek a tax ak a yomb man ngaa dugg léegi sab néeg naan ba mandi fonk say tuñ kenn du ko yëg man ngaa dugg dem sa néeg lekk say banaana wala say lu mën a doon kenn du yëg kon kay boo xëyee fajar ak sa xiif ak sa mar mun ko ba timis da ngaa yëg na ah sama soxna day yëguma sama borom kër yëguma samay dëkkandoo kenn yëguma waaye day bu ma demee ca douche ba yàlla mi ngi may yëg su ma tëjoo ci néeg bi yàlla mi ngi may yëg foo mën a làqu yàlla mi ngi may yëg yëg-yëg boobu mbokk julit mooy grade bi gën a kawe ci lislaam ñu koy tuddee al ihsan ca mooy julit di bàyyi xel ne man kat fu ma mën a nekk sama borom mi ngi may gis sama borom mi ngi may dégg sama borom mi nga xam ne nekk sama biir xol loolee da ngay gis mooy grade bi gën a màgg moo tax yonent bi alayhi salaam ne suñu borom day nee na jaam yi luñ ko jëfal ñoo ko moom seen jëf la ku ko jëfal benn dana la fay fukk wala juróom-ñaar fukk wala juróom-ñaar téeméer wala la soob yàlla waaye ba mu des koor koor moom maa ko moom ca maa koy fayal sama bopp looloo tax yowmal qiyaama su malaaka yi di fay julli di fay zakat di fay aj gannaaw bala suñu boroom woo ña doon woor ci yàlla tax fayal leen boppam loolee di pay yi nga xam ne julit bu nekk war na ca yaakaar ba lenn ci borom xam-xam sax bi ca dolli ne doomu aadama yi tooñ ñiy tooñante ëllëg dañuy tibb seeni tuyaaba di ko fayaate waaye loolu koor du ca bokk ndax koor yàlla nee na maa ko moom kon yàlla du ko boole ci la ñuy faye tuyaaba ya muy wane na kon bu ñuy sippi woon say bakkaar say tuyaaba yépp ba mu jeexit yàlla mën na am ay gam la dencal ci koor moom dana la tabbal aljanna loolu kon mbokk weeru koor a ngoog ngal la way julit ni ngay bàyyee lekk ca yàlla tax naan ca yàlla tax kees gii ñu la dénk bàyyi ko ci yàlla tax soxna fii la fekk sa biir ne kenn nekku fa bàyyi ko ci yàlla tax lépp loo xam ne nii ak toon la loo mënoon a def kenn yëgul bàyyil ci yàlla tax comme na nga bàyyee lekk ak naan ci yàlla tax loolu rek la la koor di jàngal mbokk julit koor a ngi nii mbokk julit di la jàngal ak muñ xam leen ne diine ji ñaari wàll rek la wàll bu njëkk gi mooy sant yàlla taxaw ci ndigalam yëg ay xéewalam waaye beneen bi wàll gi mooy muñ muñ googu am ay wàll yu ca màgg muñ ga gën a màgg mooy muñ ba def santaane yi muñ ba bàyyi tere yi loolu mooy muñ gi gën a màgg ci muñ yi doonte ne ne gannaaw ba war ngaa muñ dogal yi yàlla di teg ci sa kaw dogal yooyee mën na nekk ci alal ji ci njaboot gi ci bakkan bi ci lu mën a doon waaye mbokk da ngay xool aji koor ni muy muñ a xiif ca yàlla tax muñ a mar ci yàlla tax léegi-léeg gënañ ndakaaru mën na maa bañ a dégg waaye laajal koo xam ne nii mu nga cosaanoo lingeer laajal ku cosaanoo tamba laajal koo xam ne nii mas na dem ci dëkk arab yi ñu wax la lan mooy koor ca mbokk ci dëkk yu tàng koor metti na lool da ngay gis ñoo xam ne à partir de deux heures trois heures ñëpp seen tuñ sax duñ ko man loolu nga mun ko ci yàlla tax di xeex ak kan xeex ak sa bakkan ndox baa ngi nii lekk gaa ngi nii bakkan baa ngi xëcc di la ko laaj nga mun ko ca yàlla tax loolee mbokk dañu naan nit ki am doole dëgg-dëgg du ko dóor mu daanu mais borom doole dëgg mooy ki mën a not bakkanam soo delloo ci ñuy jàngale arts martiaux ñoom ñépp muy judo yaak karaté yaak yépp la ëpp ci philosophie bi ñuy jàngal ña ñuy tàggat mooy maitrise bu ñu mën a maitrise seen bopp not bu ñu mën a not seen bopp ca loolu la yonent bi alei salatu wasalaam di wax nee na mbër du koo dajal jàggi dóor ci suuf waaye mbër dëgg mooy koo xam ne su meree mën a contrôler boppam ba du wax lu ñaaw ba du def lu ñaaw loolu nag la la cay jàngal mooy weeru koor looloo tax du hasard ci sunu borom du def ak ci hasard yàlla def nga ñaayu julit yi keroog xare badr mi ngi tombe woon ak weeru koor lii di ubbi makka nga xam ne ca li lislaam amee ndam taxaw tasaaroo ci kaw suuf ba ila yummi diin yàlla ko defoon ci weeru koor mu ñu jàngal ne nekkati weeru koor du weeru tayel weeru koor du weeru yaafus jéem a rey temps bi ci ay nelaw yu dul jeex waaye weeru koor mooy weeru farlu yéen ndaw ñi ngeen war cee profitoo ut jàng ci xam-xam profité ci def ci lu baax profité ci jëriñ seen i mbokk lii mbokk da ngay gis ne mooy jubluwaay bi gën a rëy bu école bii di ñëw nar leen a jàngal ci la nga xam ne moom mooy un weeru koor googee mbokk xam leen ne weeru koor mi ngi ñëw pour lan pour defar la nga xam ne mooy suñuy jukko mbokk doomu aadama yi bokk na ka ca gën ki ci gën a rafet jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki may gën a jege ci yéen ëllëg mooy ki gën a rafet jukko ci yéen ca mbokk rafet jukko mi ngi commencé ci lammiñ ku la gën a rafet lammiñ moo la gën a rafet jukko loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ñuy wax ne man lam yada qawla zuur wala amala bihi fa laysa lillahi xaaja fi an yadaa taamuhu wa sharaabu koo xam ne bàyyiwoo wax yu jeng ak jëf yu jeng wax lu jaaduwul ak def lu jaaduwul koo xam ne bàyyiwoo ko yàlla soxlawul muy bàyyi lekk ak naan mbokk weeru koor a ngi nii mu lay entraîné yow mi daan tooñ daan nga nekk di jëw nit ñi di wax nit ñi di gëdd nit ñi di arsale nit ñi nga la waay loolu jaaduwul woon avant weeru koor waaye bis boo wooree yonent bi alei salaam nee na boo bàyyiwul loolu lekk gën naan gi yàlla soxlawu ko kon da nga jéem a def maîtrise sa bopp ba nga la waay bu weeru koor jotee doo jéem a wax wala ngay def lu dul lu yàlla gërëm waaye lislaam romb ak yow foofu yeneen bi alayhi salaatu wasalaam teg ci ne nga la waay yow bis boo xamee ñu ni da ngaa woor benn waay jóge fëre indil la la nga xam ne nii mooy ay histoire fa in imru'un saabahu ahadun aw qaatala fal yaqul inni mru'un saa'im nee na mooy jóge fële saaga la daggal law saaga yaa ko mën fuuf yaa ko dàq wax la bon fuuf yonent bi nee na yëmu ca mën naam sax ñëw na ba max la xaata la nee na yow nee ko man dama woor ca loolu di mbir boo xam ne jullit heure bu koy def day yëg ne ñaari fi ne ñaari fi taxaw imma ma def sama bànneexu bakkan ca mooy fay wax ju ñaaw ji ma wax wala mu duma ko ndax maa ko man wala ma topp sama ngërëmal borom sama borom mi ma tere ma lekk ma naan moo ma tere ma fayu ci wax ju ñaaw ji kon tant que maa ngi nekk ak koor wax ju ñaaw du jóge sama gémmiñ jëf ju ñaaw du jóge samay cër mbokk entraînement bii la ñu suñu borom farataan ci weeru lëmm ñu war caa tàggat suñu bopp lii la chaque ku ci jóge da ngay gis na say jukko dina rafet moom la yonent bi alayhi salaam doon wax naan al muslim man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi julit dëgg-dëgg mooy koo xam ne mbooli mi julit mucc nañ ci ay làmmiñam mucc ci ay loxoom loolee la nga xam ne moo la koy may mbokk julit mooy bàyyi gi ngay bàyyi wax ju ñaaw bàyyi bi ngay bàyyi fayu wax ju ñaaw ci weeru koor bi nga xam ne nii moom mooy ñëw donte ne mbokk julit la nga xam ne nag moom mooy tëj loolu lépp mooy liñ doon wax yépp mi ngi yem ci yow waaye mbokk weeru koor mooy weer boo xam ne dafa ñëw ngir jokkale la ak say mbokk julit xam nañ ne def lu baax yàllaa ko bëgg ci lu dul koor rafetal jëm ci jaam yi yàllaa ko bëgg ci lu dul koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim ñaaxaati ci sarax kenn xamul nu mu toll waaye bokk na bis mu ne sahaaba yi yàlla day mi ngi waajal la nga xam ne nii ay étage yu kawe ci àjjana boo nekkee ci bitti di gis li nekk ci biir étage yi yëpp soo nekkee ci biir di gis li nekk ci bitti yëpp ñu ne ko waaw yu muy yàlla yónni ko moom loolu mu ne li man tayyaba alkalaam wa at'ama altaam wa adaama alsiyaam wa salla bi leyli wa naasu niyaam mu ne yàlla koy gardeel ñi nga xam ne dañuy fexe ba heure bu ñuy wax dañuy wax wax yu tey wax yu rafet te loolu jullit da ko war a jàng ay xale ngay waxal ay bàyyi na ngay waxal lépp nga wax wax ju tedd dañ ne isa bnu mariam rasulallah mas la am ndeki taalibeem benn baam ku traversé ko fil ay tànkam isa taxaw na ko jàllal ci ci jàmm taalibi na ko ah yi muy yàlla yónni kii am baam xuux na ñun lañ xam ci moom mooy doy ko gut pie wala ñu ne ko bokk na wax lu ñaaw mu ne waaw waaye sama làmmiñ laa bañ wax ju ñaaw ma wax ko ci ba mujj làmmiñ bi tàmm ko ca tàmm ay wax yu ñaaw dana tax nga wax ko foo xam ne boo paree da nga rus ca mooy dagg ay saaga wala yuuxu yuuxu yoo xamee ne nii julit bu nekk war naa taggat boppam di ñaan yàlla jukko yu ñaaw yooyu yàlla rocc ko ci moom waaye yeneen ci bàyyi salaam it teg ca ne mooy ka nga xamee ne nii day mooy joxe ñam nit ñi lekk mbokk joxe ñam mu ak a baax ci fukki weer ak benn yëpp waaye xoole li yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax nee na nit ki koor yow nga may ko lu mu doge yool gi mu am ci koor gi yëpp yàlla bindal la ko ca du wàññi ci kooram dara falilahi alhamdu mbokk julit sunu mbokki arab yi am na bind bu rëy buñ ñu jàngaloon ci at yi passé ñoom de yëgoon nañ yëgeeg boobu ubbi fi ay ONG di jël seen xaalis di ko jëli ci ñoo xam ne ëpp ñu leen alal yéen ñii di ko dajale di ko yónnee ci ñun ñu ci dogal ay nit ñi wooroon waaye bañ demee ba yàgg fële laay alhamdu julli yi nekk Sénégal yéeg ni lii kat ak jaamu yàlla la loolu yi leen jël relève ba ba fële laay alhamdu jàkka yu baari tey ña ngi fay organiser ay ndogu yoo xamee ni nii la bari ca waa jàkka de dañ cay ndogu weeri koor yépp ca jógewul ci naar jógewul ci tubaab ca mbokk julli ci jàkka ja ca la bokk di mbir boo xam ne ñu ngi leen koy fàttali comme niñ ko fa doon defe at yi passé yépp am na ndogu yu jigéenu koñ bi togg di ko indi fii lu jege ay deux cent nangam personne di ci ndogu képp koo xam ne yàlla man loo na ko ko mu jël alalam def ja na xam ne ci tuyaaba yi ñu gën a yaakaar yowmal qiyaama bokk na ci jël sa alal jox ko ñoo xam ne dañu koy war a dëgg ci weeru koor mbokk weeru koor yi ngi ñëw war ñoo boole waat xamal ñu suñu borom benn la borom boobu moo ñu sant ñu commencé suñuy koor fajar ba jeexal ko timis tënkal ñu benn woor bu ñuy woor tënkal ñu bis bu ñuy kori ñu war a julit ñu doon benn bàyyi li nga xam ne dafa dab lislaam waa kër Jóob waa kër Sekk waa kër Mbeng déedéet ñun ñëpp ay julit lañu ñoo bokk suñu julli bokk suñu koor bokk suñu aj màkka ñoo bokk suñu yonenti yàlla benn buur lañu war a yaakaar ñun ñëpp kenn mooy suñu royukaay muy suñu yonenti muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem jaamu yàlla yu ñëw loolu la ñuy fàttali boolewaat ñu ñun ñëpp ñu bokk ndey baay ba doon loo xam ne bokk benn jëmm bokk na lu koy gën a yëg ci loolu mooy weeru koor rawatina yow mi nga xam ne bu dul woon a koor doo xam xiif ci kaw suuf yéen goney ndakaaru bu dul woon a koor du ngeen xam luy xiif ba nga juddoo ba tey ndékki añ reer musulman ki am naa koor gi nga xëy suba ba ngoon lekkoo naanoo nga yëg na ah kon lii mooy xiif xiif metti na kon boo yëgee ne kat am nga dëkkandoo yoo xam ne ñoom mënuñu assuré lekk ak naan loo man ci fadal leen seen xiif boobee ci weeru koor bi ak weeru ko passé dañ ca taxaw lii mbokk ay bind la yoo xam ne nii koor dañu koy jàngal li ma ci wax jeexuñu ko xaajuñu ko waaye jàpp nañ ca lan ca jot a wax képp koo xam ne jàppale ko jëfe ko dana am ngërëmal yàlla yal na yàlla wërsëgal ñu ngërëmam yal nañu yàlla yombalal jaamu yàlla gi nga xam ne sant nañu ko yal nañ ci dugg ci jàmm te génn nit ci ci jàmm lépp lu ñu koy yàqal yal na yàlla fegal ñu ko lépp lu ciy jur ngërëm yal na yàlla yombal ko ci ñun yal na yàlla wàcce jàmm ak aafiya suñu réew yal na ko yàlla wàcce ci mboolem réewi lislaam yal na yàlla rafetal suñu mën ke defal ñu àjjana mi suñu wàccuwaay rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin